sant yàlla bu baax ci barke sëriñ Touba bi nga xamante ni li sëriñ Touba bëgg am na wante it li nga xamante ni moom la askan wi muy ndaw ñi doon jooy it saafara lépp ci barke Serigne Touba. waaw jërëjëf kon euh, li nga xam ne moo tax ñu ñëw fii euh, li may jiital mooy wax ne maa ngi ànd ak ñaari samay mbokk taalibe di samay adjoint man maay principalu CEM bi nga xam ne dafa takk ak barab bii ñuy liggéey muy CEM Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne kii di sëñ Ablaye Muslim di professeur lettres histoire géo ci école bi euh, sëñ Bamba Diop mi nga xam ne surveillant la ba pare nekk comptable matière spontanément bi ñu gisee liggéey bi lañu ñu yëg ne ñun kat war nañu jëf jëmale ci lii xéewal mënta feesu lii nga xam ne sëriñ bi andi nañu ko nga xam ne barab bi wóor nañu dana gën a dundaat tawfeex dana ci juddoo ñi ma war tamit mooy élève CM bi muy ñu góor mu ñu jigéen ñoom itam dafa mel ne bi yëf yi yëkkatoo bañ leen ko waxee kenn ci ñoom ku ne làmb nga sa boos am na ñoo xam wóor na ma ne seen paas sax la ñu yëkkati jox ko joxe ko ci liggéey bi ngir ñu première participation bi daakaar naa bu ñu jëlee ba àggal dana jege 100 sachet ndox paquetu yoo xam ne dañ koo barkeelu ci liggéey bi donte daf ñoo bett ngir ñëwaat dikk te li ñu wax sëñ bi mooy dañ ko fas yéene ànd ak moom ba liggéey bi àgg ndax xam nañ ni sëriñ bi moom lii mu bëgg mooy njariñu ñëpp mooy njariñu ñi nga xam ne xam nañ ko mooy njariñ ñi nga xam ne xamuñu ko loolu defe naa ni liggéey la boo xam ni gannaaw ñun ñoo ko jege eh, te sëriñ bi ñaanaloon na tawféex ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkandoog moom ndax dafa waxoon ne duuri wa maa lixtira min jiiraani naajeetu min jaal min xusraani neen képp koo xam ne dëkkaale nga ak moom doon ay voisin am suñu borom musal na la ci lépp luy lor loolu nag bu ñu amee tawféexu dëkkaaleek sëriñ Touba nii dafa mel ne kon li ñu war mooy wane ne tawféex yu ñu am kat gis nañ ko te yëg nañ ko loolu mooy li nga xam ne te lii tàmbali rek la dañu fas yéene ànd kook ñoom ba mu àgg te xam nañ ne li ñuy def tamit lu inspecteur de l'éducation de la formation de monsieur Ndiaga Ba wóor na ma ñu lu mu gërëm la ndax xam na ni luy tax rek euh, élèves yi nekk ci épanouissement luy tax rek liggéey bi dox te xam nañ li sëriñ bi bëgg mooy li nga xam ne mooy njëriñ tey njëriñu ëllëg mooy njëriñu communauté bi waaye njëriñu ñëpp loolu moo tax lii ñuy def tamit xam nañ ne lu mu gërëm la lu mu ànd la moo tax dañ koo def defaaleel ko ko ndax xam nañ ne bu amoon jot gi wóor nañ mooy ñëw teewal boppam fii jëf ci jëfam Euh, dugal ci loxoom te xam nañ ne weesoogul dana ko def ndax lii daanaka ci barabam la dugg ndax lii mook CM bi ñoo dend mën du leen a xàjjale kon lii ñuy def tamit ci loolu rek la dugg. dëgg la parce que fii tamit li ci jiitu sax li ma ta wax mooy bi nga xamee ni sëriñ bi wane na ne euh, barab bi kat am na leneen lu mu ci bëgg ak lu mu ci jublu ñun ba ñu lee loon ne toq suñu nopp ci la ñu def li nga xam ne mooy li dëppook loolu mooy éducation physique bi ñu daan defee fii. dañoo wax ñëpp ne gannaaw sëriñ bi moom am na geneen jublu ci barab bi nañ fexe di ko defe feneen fii nag war nañ ko ginnaaw booba ba ko sëriñ bi tuddee junj ko wax lim ci bëgg la ñu fexe ba euh, li nga xam mooy éducation defee tuñ ko fii ñu ngi koy def ci biir école bi jël nañu ay disposition ngir def ay aire de lancer poids def fi sautoir euh, déblayewaat barab bi bayaat ko mu am espace bu yaatu prof EPS yi tamit ñoo wax dëgg yàlla ànd kook ñun nangu ko rafetlu ko xam ne li sëriñ bi bëgg rek mooy li nga xam ne mooy jariñ ñëpp ñoom itam ñi ngi def liggéey bi foofu ci biir école bi euh, muy loo xam ne tamit euh, donte euh, barab biñ ko doon defee fii la woon xam nañ ne tawféex bu rëy la ñu am ci def ko foo xam ne danañ ko mën def ci biir école bi te fii dafa gën a yokk sécurité bi sax ndax barab bi bu fi nekkaan xale yi bu ñuy dugg fii yenn saa yi daan nañ fi jaar sax te sécurité bi sax daawul demee noonu kon fii lu bokkut ak sax li nga xam ne sëriñ bi loolu la jubla muy jàngale yar ak lu baax ak diine sécurité barab bi dafa daal di yokk waaw ak li nga xam ne mooy li sëñ bi lu mi nga xam ne moo fi jege xam nañ li tax sëñ bi jublu euh, def ko fii loolu kon lu mel ne lu yokkuwaat la ci mm, tawfeex gi nga xam ne am na ci liggéey bi loolu nag dafa mel ne lu am solo la euh, yi ni ma ko waxee ñoom ñëpp ko waxee dañ leen yëgal yëf yi kenn ku ci ne yëkkati def ci ñaqam ñoom lañu àndal ñii ngir jébbal seen bi li nga xam ne mooy suñu participation bu njëkk ci bis bi gannaaw bett na waaye dañu am pas-pasu ànd kook ñoom ba këréw liggéey bi àgg ndax xam ne ñi njariñu ñëpp lay doon tey ak ëllëg